ETDR Events vous présente le 14 janvier, fils de Bala Lacrosse, drapeau Ousmane Sakaljen, maire de Sakal, Réunion Tchatouyov, drapeau Ahmadou Bambassar, directeur général de l'artisanat. Deux grandes affiches, une même journée, ETDR Events, le 14 janvier, sponsor officiel, établissement Toubadar Rahmar, Junou Rola, Toubadar Salam Karo, Tampico, Huile Global Textile, Kir Arab Business. jëre ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen joxal seen wàccuwaay bu baax a baax comme ni mu leen ko yàgg di waxee rek defe naa ne actualité la ba tey ndax démb defe naa ne dañoo dem jële ki nga xamante ne mooy Coly Faye jóge fa mbokk yi jëli ki nga xamante ne mooy abu Ndiassé abu Ndiassé ñu ngi koy encouragé bu baax a baax di ko wax ne mbër la te ci làmb la bokk na dellu dem entraînement dafa taxawaayam bu baax a baax defe naa ne dina baax Euh, démb nag bi ñu jëlee Coly Faye defe naa ne am na ay kàddu yu mu wax dugal ci ki xamante ni nii mooy mooy mooy mooy Niang Ballo bi ñu jëlee Abou Diassé aussi tamit am na kàddu yu mu wax jëmale ko ci Niang Ballo Niang Ballo nag mbokk yi moo àndoon ki nga xamante yi mooy Guèye Séas andi ko mu jëflante ki nga xamante ni nii mooy Abou Diassé keroog nag bi làmb ji jeexee coow li bari na ndax moo àndoon ak ab euh, giro ci préparation yi ba ci biir géew bi teel ko misigam ah mais bi làmb jeexee ñu bari dañoo dégg muy muy muy muy joxe information comme si dañoo toj suma oto te làmb ji jeex na woo ñoo yàq suma oto euh, te defe naa ne bu ñu ko yàqee dinañ ko fay ba tax na nag ñu seet ko bëgg waxtaan ak moom ndax laataa loolu sax bëre na fi ak ki nga xamante ni mooy Ibou bu Kër Mbaye yàlla dogal mu am ci ndam bëgg nañu waxtaan ak moom aussi ci adversaire yi nga xamante ni ñoo nekk ci kanamam ndax doon nañ fi dégg ay proposition mais boobaa ak léegi di gàttuguñ ci dara laataa loolu nag dama koy bàyyi mu nuyoo rek ñu doog a dugg waxtaan wi nuyu naa la ñang maa lay fay maa lay fay bu baax bilaay di nuyu waa Parcelles Cambérène xam nga un ba vingt six inde quatre inde trois xam nga inde cinq du nuyu ñëpp du nuyu ñëpp di sant ñëpp waaw di la fayeew bu baax a baax a baax. gis ngeen defe naa ne nuyoo am na solo ndax euh, booy dugg ci kër da ngay jaar ci bunt ba bu nuyu waa Passe nuyu waa Cambérène defe naa ne loolu jaadu na mais euh, da nga da nga jëloon sa combat ak Ibo combat ba woon coow mu nekkoon ma Mafia mais ngeen bëri ko ci komba bu neex mais li ngeen bëree. keroog dafa neex wëndeelu bi fàq bi fii wër ndomb bi fii mais ñu ci bari bi la wër ndomb dañ ne woon làmb jeex na mais naka nga bëree woon. waaw bëre xam rek bëre moom reenu ñaambi la ko waaw kenn xamul fu muy daggee xam moom wër ndomb rek jeexalul làmb ko waaw. waaw di wax Ibo tamit xam moom champion la bërekat la ndaanaan la ko waaw. waaw di ko encouragé di ko ñaanal su amatee combat borom bi may ko ndam ko waaw. waaw xam nga bëri ko nag si jàmm ak salaam bëri ko si fulla ak fayda ndax jour boobu noonu ku ñëwoon si stade bi rek xam nga ni nga xam ne Ibo ak Niang baalo non tey ñoom ñaar làmb ji nii ñoom ñoo fi wane jom wane fi fulla wane fi xeex bu am solo wane fi bëree ko waaw. mais ñu ci bàyyi nee nañu Niang dafa xaw a soxor dafa bëgg xeex te buy dóor énergie bi mu ciy def dafa bari. non lu leer du soxor sax xam nga ndax ñun ko quoi ñun moom du soxor sax mais gars yi mën nañ ko gisee noonu quoi. mu maanaam ñu nonoo waaw nonoo ragal defet ko yeah nonoo bañ waaw nonoo ragal defet moo tax suñu amee bis rek dañ siy def fulla ak fayda xeex bi dañ siy wane fulla ak fayda bëre bi dañ siy wane fulla ak fayda waaw loolu nag amaana lay gars di gis sax bay jàppal leneen ko quoi mais du dara waaw. mais bi mu la wëyoon ndomba jàppaloo woon oh, def na euh, yàq naa suma laam. non tiitu la woon non non barki alxuraanu karim tiitu ma. maa ngi doon gis booy maa ngi doon gis gaay maa ngi doon xam ne man wër nañ ma ndomb maa ngi gis sama entraîneur waaw su ma sigee nii teg sama loxo maa ngi gis képp ko ma gis rek may xam ne kii diw la. amoon pression moment boobu. benn benn pression yàlla xam na loolu aw ma benn pression waaw ndax moment bu ma Ibou wëree ndomb noonu man xam naa lu ma def ba dindi ko xam naa lu ma def ba daan Ibou. ndax loolu yàgg na ko mais moment boobu moom moment boobu moom xalaatuloo woon ne fii fii fii mën nga fi xalaat dina fi génn mais xalaat daan moom defe naa loolu moom nekkul woon sa xel. non lu leer moment boobu noonu benn affaire rek laa xalaat quoi muy dama ni kii dóor yu dóor yu ma ko doon dóor day fayu quoi. Ah, day fayu si waaw dama ni day day fayu si quoi. <clears throat> après si la mu wër ndooma noonu ma ma teg sama ñaari loxo yi gis ko moom muy muy muy muy jekkalaat quoi di taxawaat bu baax a may gis loolu noonu si laa doxee retard si laa doxee retard teg benn tànk nii moom mu génn man ma génn moom mu taxawee ne si la jéemee buddi ma wér ko sama poids tourné xam ma daal koy teg sama épaule bés ndax boobu dafa taq léegi moom su bàyyi woon taq bi rek du daanu ko waaw moom dafa taq waaw bàyyiwul léegi si laa ko tegee sama épaule après moom bàyyiwul ba du muy daanoo bàyyiwul ko waa waaw mais su bàyyi woon taq bi rek du daanu waaw. dañuy jàkkaarloo dañuy jàkkaarloo waat mais moom jàkkaarloo boobu nag la doon bañaat ko waaw. dafa bëggoon kutoo kut jeexal làmb ji. waaw waaw dafa bëggoon jeexal làmb ji kutoo kut nag mais xam nga rek. waaw noonu la ko borom bi tuddee woon xam nga yàlla may na nu si ndam ko waaw. waaw mais boobaak léegi nga am ci ndam boobaak léegi nga am ci ndam mais kenn kenn kenn kenn gisaatul kenn gisaatul ñoŋ baalo. adversaire yi est-ce que ak léegi bi nga bi nga bëree ba noppi ak promoteur yaa ngi lay woo di la proposer adversaire waaw boobaat léegi nag xam nga ba tey amaana sax maa ngi doog a génn wala làmb giro bi démb laa génnaat ak tey ndax boobu ba léegi dama tawatoon quoi. waaw dama feebaroon xam ma mais mbër yi ku ci bëree ba noppi rek day wax dama tooy séance d'entraînement yi moo dul baax wala récupération bee du doy wala lekk bee du doy. waaw amaana mën na nekk bi mën na nekk tamit xam nga. si coob bi affaire yooyu noonu quoi xam nga mais science entraînement yi moom wax dëgg fa neex yàlla xam nga gars yi teg nañ ko si yoon bu baax a baax a baax suñu coach suma ab sa moo nu yor saal xam nga fii ñu ngay fekk kaara seecaam xam nga ak deef xam nga waaw ñu ngi ko doon teg si yoon bu baax a baax ak ndukumaan moo ñuy téyel gars yi ñu ngi doon teg affaire yi si entraînement bu baax mais amaan na récupération bi moo dul doy ak xam nga waaw yenn affaire yi ndax ñun ay mbër yu ndaw lan quoi waaw yenn affaire yu bëri doo ko mënal sa bopp ndax loo récupéré récupéré entraînement su jotee da ngay dem entraînement xam nga waaw booy tamit suñ la bëggee gis dañuy ñëw gaale xam nañ fi ngay daloo dañuy ñëw fëgg ñenn ñi suñ fekk ngay dalu dañuy seey ñenn ñi nag nañuy daaj bu boobaa ñun dañuy daaj ak ñoom ndax ñun duñ wax kenn demal damay nelaw wala yooyu noonu non non waaw nañuy daaj ak yow ba nelaw nga xam ni kii nelaw na. yaa xam na ngay nelaw yaa xam da ngay jug dem ko waa mais fa la nuy toog ak yow quoi waa ndax ñun duñ dàq kenn waaw. sa diggante ak booy daal mafia bu dëgër la. waaw booy yi man ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mafia bu dëgër la ñooy bokk suñu boolu añ ñooy bokk suñu ndekki waaw chaque jour suba ngoon suñuy ñëw entraînement ñooy ànd suñuy dem ñooy ñooy demandoo fépp fu jëm ñooy ànd waaw mafia bu dëgër la. mafia bu dëgg la def naa lu am na solo mais ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen euh, boo xamante ni combat dafa bëri woon coow ndax combat bi defe naa ne xam nga dama dégg Guiro sa sax naan combat bi 13 mois la mais combat bi man mën naa ne ëpp na 3 ans parce que sama juumul combat bi Assane Ndiaye taxawaloon na ko fii mu amoon problème mu spécial la ñuy bëree grand combat la ñuy bëree huitième combat la ñuy bëree looloo yàqoon combat bi. combat bi taxaw coow lu bëri woon naka ngeen gis waa jàmm ni ñëwee ñoo maas ñëpp génn jàppale abu Ndiassane nag ba gisee loolu naka naka naka ngeen réagir. waaw man gisee loolu nag xam nga nekk na lu rëy ndax xam nga ku tourné gis Siteu mu indi loolu rek day di si yeneen ni quoi mais ñun bis yu mel noonu yàgg nañ ko am ko waaw muy ñun yàgg nañ yóbbu giro si combat soog yu demee noonu waaw mais. làmb ji dé barki démb moom nekk na làmb ju yéeme làmb ju doy waar. wax ma mais di ñaanal Giro ndam li jikko xam nga di si encouragé abu Ndiassé su amatee combat borom bi may ko ndam. yow yow da nga ñëw ci làmb ji mais coow li dafa bëri woon ci camp wu ñëwee. ci camp wu. camp waa camp waa Lansari coow li dafa bëri woon trop. waaw loolu gis nañ ko ndax loolu day may day may beneen mbër bi lii quoi. da may confiance. ndax man gis naa coow li foofu noonu maa xëcc Giro ba ma jisee coow li maa woo bureau ni ko mbërkaay joxoñ ko gaay joxoñ ko joxoñ ko gaay ni ko gis nga ñoo ngi coow ñoo ngi coow quoi instant yi nekkatu si làmb ji waaw ma ne ko nag sa waay nag day xeex si quoi. Mhm. nga ko gars yi nekkul ci làmb ji moment bi ñu ñëwaatee ci biir géew bi. ñoom ñaan ñu jàppante waat ba ñu xaw fa wéccante ay coups moment boobu tamit lan nga lan lan nga gisaat. moment boobu ba tey lu ma jisoon rek laa ko waxaat. dama ne ko abu day xeex si mu ne ma ah, ma ne ko waaw mbër day xeex si quoi ndax man loolu daf ma mus dal quoi waaw sama combat guy manko quoi waaw sama combat guy manko loolu daf maa mus dal ma ñëw xam nga comme noonu mu demee si kii rek si abu njaasi rek ma ñëw alkaati yi xam nga jaay ma parek foofu noonu xam nga rek mooy loolu ndax ñu am nun def ak ñoom après affaire yi jeex mais ba mu duggee man. ranking boobu noonu laa laa laa moom laa wone foofu waa ndax laa ma jooju yow yaa ngi fa ko waa ndax man amaana man duma bëree noonu sax ndax du ma xeexee xeex yu métti yooyu sax moo tax ba ma jisee loolu démb si camp Abou Ndiassé dama woo Giro taxaw ko boobu mu ngi échauffé ak coach bi ma ne ko kaara taxawal ma ne ko mbërkaay mu ñëw ma joxoñ ko gars yi wan ko gars yi ni yaa ngi gis mu ne ma waaw ma ne ko dañuy coow seen biir ko waaw te sa waay day xeex si te noonu la demee. abu dafa xeex si. mais abi bi ku xam abu xam na bu abi sifflé lay tàkk abi sifflé abu téye boppam di direeku ndànk est-ce que yàpp leen seen calcul faussé wul foofu. waaw ndax boobu xam na rek boobu moom ñoom ñu ngi doxee retalaal ñu ngi doxee retalaal boobu laa gën a confirmé waat ni sa waay day xeex ndax boobu man maa ngi isolé wu ne le man kese taxaw ba ñuy doxee retalaal noonu si affaire yi sax laa seetaanawaatee làmb ji ba ñuy ñibbisi waat laa ko seetaanaat quoi waaw. mais man xamoon naa ne abu day xeex si quoi man loolu leer na ma. mais ñu lewaatoo lu yàgg demee saako yi demee saako yi mais ñu jékki-jékki lamb ji daal benn coup moo ko jeexal mais ñu ci bari waa waa waa waa Lansar ñu ci bari ne nañ coup bi dalul ba ci Abou Ndiasse mi nga xamante ni maa ngi koy nuyu bu baax a baax jël naa ko démb nee sa waay da koo sànni coup mais moom ku ko xool xam ne kaawuwul maanaam da ko da ko da koo jalox coup mais bi mu ko jalox bi mu ko jalox loxo bi ci la baa dugg ci bëtam loolu moo ko tere. sa waay coup coup bi moo ko dal waa maanaam maanaam coup droit bi xam nga kaaw moom ay deux secondes la trois secondes quoi kaaw kaaw yàggul ndax ñun yàgg nañu kaaw quoi ñun yàgg nañu jël ay coups yu mel noonu kaaw yàggul quoi ndax sa waay moom am entraînement sax ak doon jàmbaar sax moo tax sax mu mu mu lii quoi mu mu mu mu rëpp noonu waaw waaw waaw entraînement moo ko def noonu waa quoi ndax abu ba soo gisee ba nu muy wàccee sax mu ngi téye garde bi ko waa si kaw mi mi ngi aj gardam nii mais giro dafa dóor ku coup droite ku boobu dal nag léegi après nag mu bugg a dolliwaat gauche bi fekk baaraam yi boobu dalul sax loolu dalul baaraam yee ko romb quoi mais amaana nag moom moo nekkoon si biir géew bi ndax ñun luñ gis si écran bi rek xam nga la ñuy mën a wax waa amaana baaraam yi mën na dugg si bëtam quoi waaw amaana baaraam yi mën na dugg si bëtam. mais man moom lu ma jàpp dama jàpp ni Giro waa da ko touché quoi waaw. Ah, nga jàpp ne Giro da ko touché mu am ndam loo xamante ni defe naa ne soxla ku ci ñoom ñaar ku ci nekk soxla woon na ko mais euh, Giro yàlla dogal na moo am ndam mais ñu jóge ci loolu ngeen commencé zibilé ñu jékki-jékki dégg ñang baal di di di di déclaré que ne si dañoo dañoo dañoo toj verre otoom euh, Abou Seck a toj sama verre oto. non est-ce que est-ce que est-ce que réellement est-ce que réellement parce que Coly Faye bi ma ko mi ko dafa né bi je ji jeexee moom Abou mo japp Abou leen ba ci bi auto bi ay Abou sax ci lañ ko baye jot ñu ko jël si né bu féké mom euh, bu féké ñang ba la wax loolu waxul dëgg wala waxul li am xam nga dafa wara respecter bopam quoi manam mom mom bu muy mom ak suñuy ak suñuy grand frère xam nga mooy maanaam moom dafa war a respecté boppam maanaam respecté boppam mooy lan suñ ko taajalee micro xam nga suy wax si nit mu wax si loo si moom loo xamante ne xam nga mu respecté doomu aadama yi mais maanaam moom warul taxaw di wax naan ay du dëgg xam nga ay affaire yooyu noonu quoi ay ku wax lii waxul dëgg yooyu noonu. est-ce que jàpp ne da nga da leen sosal moo tax. baay man du ma sosal doomu aadama man du sosal nit quoi waaw non aw ma jotu di sosal doomu aadama man. ñëw nañ gaare suñuy affaire gars ñëw fekk nañu si plateau bi xam nga ni abu Seck dóor na xeer si seen pare-brise bi. loolu kañ si jour boobu ñu ngi toog si plateau bi plateau ma ne plateau kii Baye xam nga kañ la woon ji nii wala ab. làmb ji si waaw ba nit xanaa kañ ku daan mooy toog si plateau. ba Giro daanee ba toog si plateau bi. Mhm. man Giro Talfa Ada Boy Bawal. ci la gars yi ñëw ni gars yi dóor nañ xeer si seen pare-brise bi. yow kan moo la ko wax. xam nga gars yi ñoom gars yi dañoo yaakaar seen deux roues si bunt bi xam nga ñëw fekk na foofu ni mbër mu ne ko waaw mu ne ma Abou Seck dóor na na xeer si seen pare-brise bi dem na ndax moom dafa joxoon bër waa ju ndaama jooju noonu Babacar. Babacar ban. journaliste. Ah, Babacar mi nekkoon les arènes. waaw xam nga moom affaire bi fa la jugee sax. si sama combat maak Ibo lan ko dàq foofu noonu la teg si Ibo moo indi woon Ibo. waaw moo indi woon Ibo mu teg si Ibo mu teg si Ibo tout hundred day leer bi mu andi Ibo dafa jëloon waaw non dama yow xam naa lu may wax nii xam naa lu may wax quoi maanaam moom dafa indi Ibo yaa ngi dégg ba mu indoo Ibo mu teg si Ibo mu teg si Ibo deux cent mille ñu jël suñu xaalis ma teg si sama bopp sam benn booy waaw sam benn booy waaw yoo xam ni ñoo àndoon mu génnee deux cent mille ñu teg a ak abu sek dàq ko yaa ngi dégg ñu dàq ko amaana nag foofu la jàppee rànkiñ ko waaw ndax man si xuma ak moom lenn man ak moom amuñu benn problème si xuma moom dara xam nga amaana foofu la toppee rànkiñ si jouru làmba ji tamit ma am kenn ku ma yónni ndax moom mbayaar la tekkat la man tekkat laa ma ko yuuxu naa ko si biir géew bi abu seeko abu seeko yuuxu ko pour maa moom ñu teg mais dégguma ba pare alkaati yi dun ma may ma yegg foofu noonu maam ku ma yónni ni ko demal nga ni abu seeko ñang baalo nee na moo ngeeg deux cent cinquante mille ngeen ñëw ngeen teg yaa ngi dégg man duma sosal doomu aadama ko waa muy maanaam Coly Faye suy wax moom nay xoolaat lu muy wax quoi. ma am ku ma yónni ne nga dama nga ni Abou Seck mu ñëw ñu teg maa ngi ak deux cent cinquante mille boo ko boobu maa ngi ak trois cent cinquante mille mu ne ko maa ngi ak deux cent cinquante mille na ñëw ñu teg waaw am kooku dem ñëwaatul gisaatuma ko quoi kooku dem ñëwaatul si la jékki-jékki mooy journaliste boobu Babacar la waaw Babacar ñëw génn waaye ni ma Abou Seck nee na ngeen teg. moom ko waa moom Babacar ni ma Abou Seck nee na ngeen teg ma ne ka ñaata la ñaata la la jox nu ma compté wu ma ko dafa yëkkati xaalis rek jox ma man ma génnee sama xaalis compté deux cent vingt mille mu manqué ma woowaat beneen booy mu jox ma cent mil ma woowaat beneen booy mu jox ma cent mille ma ko koy compteel moom Babacar si boppam ndeysaan xam naa kilifa la waa moom Babacar kilifa la buggul coow affaire yooyu noonu mu ni déedéet day delloowaat xaalisu jàmbur yaa ngi dégg wax ji mu ni déedéet day delloo day delloo xaalis jaamur ma ne ko Babacar yow Abou Seko moo la jox lii pour ñu teg am téye ko ñaat la la jox ma compté jox la kilifa la xam naa day bañ yeneen affaire am si moom mu delloowaat xaalis ba moom mu dem waa teg boobu mu jul am léegi moom ba si biir moom ba si biir làmb ji moom jàpp na ni moom ba tey teg na ko waaw. ok. waaye man du ma waxantu ko waaw. leeru dara. jàpp na ne parier bi muy continuer. jàpp na ni parier bi continuer na amaana. mën naa Babacar mën na ko ko jox avant lamba ji wala noonu mais amaana xam nga jàpp na ni période bi continué na mu mu làmb ji dem ndax man boobu su ma neexoon rek mën naa dem jël Babacar si suuf xama nga lu ma lay wax ni bu nekkoon man gëw ma sama bopp wala benn defeñaa laa wala dara mën naa dem gis Babacar affaire yooyu noonu. mais danoo continuer làmb ji jeex Giro daan Abu Ndiaase ñu toog si plateau bi booy yi fekk nu foofu ñi ma diw toj na sa pare-brise te maag moo ma doon teg. kon amaana loolu la jàpp moo tax mu def loolu. waaw mais garaawul pare-brise bi changé nañ ko ñoo ngi si leneen instant ni nii. mais mais mais keroog bi nga toogee première réaction am bi mu bi mu toogee presse yëpp toog. dafa génn wax boobu ne abu ne abu abu Seck moo toj oto Guiro Séras mais dina fay pare-brise boobu fayaat bi yeneen pare-brise ñoom nag wax boobu dinañ xaw a def ay ndax nee na ay waxi comédien ngeen di wax waaw mën na nekk mën na nekk waxu comédien ndax ñun dun ay comédien quoi. bien mais loolu Guiro wax noonu. loolu du dara ndax yow tamit ñoom bu nekkoon ñoom foofu lañ toog tamit loolu la ñuy réagir ndax sa parapluie su gaañ yi def noonu xam nga foo jaar defen waxee noonu mais mooy loolu sëñ Fallou loolu du Thiès bàyyi ateex rek sëñ Fallou rek loolu du dara billaahi. bàyyi nga loolu mu sedd. non ñun mooy loolu ñun ñun bu dul dara sax baay seen seen seen seen champion Siteu xam nga sunu garant la sunu garant la xam nga kon man amaana ñoom su ma amul woon man ñang su ma amul woon lu ma jëndee. lu ma jëndee pare barki Serigne Touba su ma woowee Siteu ni ko Siteu mu ne ma waaw ma ne ko ah combat giro bi ak Abou Ndiassé la si loon tojee sama pare-brise dem naa si bërëm sàngam nee nañ ma cinquante mille waa yow waa yow dix mille laa dama bëgg nga may ma trente cinq mille barki alxuraan daf ma koy may ah daf ma koy may su ma woowee Maama Lamine xam nga su ma woowee Maama Lamine ni ko waaw mbër kat gars yi ñoo toj sama pare-brise vingt mille laa yore dama bëgg nga may ma trente mille daf ma koy may su ma woowee keneen ak keneen nag noonu mm-hmm. xam moom mais amaana pare-brise làmb leen séqoon quoi mm-hmm. làmb leen séqoon jeex na jeex na pare bi gars yi changé noonu ko xam ma ñoo ngi si leneen quoi waaw. mais fi mu toll nii fi mu toll nii euh, dama doon dégg sa combat yàgg bul laal loolu fan la toll. waaw loolu si bu laal la des xama nga bu laal moom xam lu tax jëlul avance bi moom moo ko xam loolu si bu laal la des mais ñun moom. nekkuñu fi kenn ah. bu laal lay wax man de si bu laal la des. bu laal xanaa du bàyyi fa. waaw waaw góor jàpp waaw bu laal. amaana nag xam nga tout tànkam yi lay sóoraale ay yeneen booy moo tax sax mooy loolu. waaw mais xam nga rek mais xam nga bu laal xam moom nante la moom xam na ni moom su jëlee avance bi moom booy yooyu dañuy xaar. ah loolu loolu tax bëggul lekk avance. waaw xam moom Baye Fall la champion la te barki Seera Fall laa la waatal de man damaa bëgg bëre bu laal man ñang amaana boo ko waxee mu bëgg waaw c'est xam naa ne moom Baye la moom. c'est que man lan moo tax mu bëgg a bëre ba laal ndeysaan ba tey gars yi xam nga mbër yi bëri nañ fi mbër yi bëri nañ fi quoi mënoon naa dem singilewaat keneen mënoon naa dem xool tamit si may paa yi mënoon naa dem xool si maay paa xool si grand frère yi mais jàmbaar jooju dama ji si moom xam nga dama ji si moom jàmbaar ji si moom Baye Fall xam nga ji si moom Baye Fall gis si moom góor yàlla lépp du lépp lu njabootu Serap Fall woote bu laal da siy da siy nekk loolu ñun ñu ngi siy teg suñu bët quoi. te man gars yi damay dox sax ñu naan ma baax yow loo bokk ak bul laal barke alxuraanu karim waaw man dama xam ma loolu yàgg na quoi avant maa bëri arène baay la ma gars doon wax yow loo bokk ak bul laal loo bokk ak laal ma leen wax dara léegi man su ma demee man bay commencé nii di bëre nii xam nga yàlla def man yegguma sax fu bul laal yegg moom daf may may sens quoi moom daf may may sens yegguma sax fu mu yegg mais man maa bëgg bëre ak moom ndax nit ku nekk am nga droit bëgg bëgg a bëre kenn am na ñu bëgg a bëre Modou Lo te yegguñu foofu. Mhm. am na ñu bëgg a bëre Siteu te yegguñu foofu mais ma maa bëgg a bul laal mais amaana su ma waree bëreeg moom rek naa bëreeg moom mais tànk moom daa aju rek man garaawul ko waa du ma ko forcer si lenn tamit waaw dama koy bàyyi rek moom nu mu def noonu la seeyib la rek waaw. gis geen mbokk yi tey ña ngi leen seet woon defe naa ne waxtaan bi am na solo euh, des fois nag da ciy baax. bu bu bu dara amee ñu topp kaa bi leeral ko ba mu leer parce que nag des fois bu ñuy waxee fii faaw nga dem jëli kaa bi waxee fii parce que boo jëlee ñii ñu wax rek te dem seetuwoo ñii euh, amateur wala boog ñi nga xamante ni dañuy xaar ci image yi mënuñ koo gisee neneen waaye comme que dem nañ jëli qualifié jëli nañ euh, ki nga xamante ni mooy. Euh, Abu Ndiassé faaw ñu jël si nga mooy ñoom Baalo jël Guiro Séras parce que yooyu tam da ciy boo amoon kàddu yu mujj lan lay wax lan ngay wax ak lan ngay wax say supporter yi nga xam te ne dañuy xaar ñoom Baalo wala xaa ñang wa départ jëm sar waaw kàddu yu mujj moom su ko amee xam nga di jégaluwaat ñépp rek di jégaluwaat ñëpp di xam ne ñun xam nga duñu ay ennemis quoi duñu ay noon quoi dunduñu yeneen affaire yi ñun ay Baay Faal lan quoi xam nga duñ lu ñaaw duñ wax si lu ñaaw quoi xam nga xamuñu lu ñaaw duñ ko def quoi ndax nekkul dañuy topp benn rythme bi rek. di si dox di si dox waax maanaam luy gars yi di wax rek xar day weesu mbote quoi te ñun daa am ñu topp suñu ginnaaw quoi daa am ñoo xamante ni nii xam nga fu ñang jugee nañ fay jóg waaw kenn du xeeb sa nit quoi kenn du xeeb sa nit kenn du xeeb sa boppu te ñun xam nañ kun doon ñun suñu waxee gaa yi dañuy déggu suñu kàddu suñu waxee gars yi dañuy bàyyi xel kon lépp lu ñuy def rek xam nga day doon loo xamante ne nii luy neex doomu aadama yi la mais waruñu xoolee ñu ni ñag moo fiy def lii wala giro mooy def lii ñuy suñuy nit diñu gis duñu xeeb si loolu noonu loolu ñun doxatuñu si yooyu sax mais ñoo ngi jégalu ñëpp xam nga waaw bu dee daam loo xamante ne nii tamit xam nga nañ ko wax neexul yenn gars yi xam nga ñoo ngi leen di tuubaat muy suñuy nit suñuy rax suñuy gaan ñoo ngi leen di tuubaat quoi mais si wàllum làmb moom si wàllum combat mais maanaam ñun duñ si maye dara quoi waaw wàllum wàllum làmb su ñang amee làmb wala giro am làmb wala talfa am làmb ak kun mun di kun mun di amal làmb ñun duñ si maye dara ndax caaxaane wuñ ko quoi waaw caaxaane wuñ ko bu baax a baax waaw ab seek nag moom xam nga saa yu bëggee teg rek moom saa yu bëggee teg làmb bu mun di am xam nga làmb bu mun di am muy làmb làmb Siteu rek laa dul teg ak moom ko waaw làmb Siteu rek laa dul teg ak moom quoi ndax ñun. bu dul dara sax xam rek kooku Baye Fall la góor yàlla la ko waa mais moom saa yu indee booyam rek le 31 bi tamit muy maanaam ardo ak kii bi nii. ardo ak kii bi nu mu tuddati. ardo ak yile bi. waaw waaw man moom rek laay tegal. waaw déclaré ko. man mooy andi yile waaw. muy maanaam waaw muy maanaam combat boobu noonu. moom lu mu si pare rek ñu teg ko waaw. barke Serigne Touba Mbacke. yaa ma gën ba passé bi daal bëggoo mu jeex. déedéet moom maanaam man moom rek laay tegal foofu noonu waaw. gis ngeen mbokk yi defe naa ne am na solo euh, defe naa ne jàmm gën a paaseel moom waragul jeex sax ndax dër bi la des fois nag faw ñuy laalante Pikine dugg Géejawaay Géejawaay dugg paaseel. am na solo tey nag ña ngi leen seet si woon waxtaan ak moom ci actualité waaye mbokk yi di kontaan ci yéen gis nañu ni ngeen ni ngeen xoolee affaire yi waaye li may wax chaque jour rek day leen yokk abonné yi partage bi tamit na yokk waaye mbokk yi di leen jox di daje dina pare nga noppi. waaw man sama waa ji rek laay ñaanalaat ndam li jikko giroo xam di masawu tamit waa koñ bi di jégalu ñëpp ndax xam nga rek suy gars yi di génn fii nii génn bu doy waar la ñuy génn xam nga di masawu ñëpp di jégalu ñëpp ndax xam nga rek ñun mënuñu nekk kenn ku nekk ñu tëy la naan la lii ak lii xam nga di wax booy tamit su gars yi amatee ñu siy gën a jàpp rek jàpp bi nekkul si weccit jàpp bi nekkul si teewal quoi maanaam su ñuy demati stade xam nga lépp di rafet rek ban yegg stade quoi lépp di rafet ndax après ñun ñoo siy sonn quoi ñun ñoo siy sonn barki alxuraan. ba ñu nag lu ne la ñuy ñaan waaw dimanche. gàlle giroloon yenn ñu fa ñëw di seet si mbër di kalaame quoi te maanaam ñun amuñu doole bu ñu fayee quoi ñun amuñu doole bu ñu fayee xam nga doon nan fay sax mais mu jóge nan nu ko tere quoi. doon nan ma la sama waa ji diw ñëw ni danoo jël sama alal ñu taxale ko fay ko mais après nan nu ko tere waa ay kilifa ñooñu wax bàyyi leen loolu ndax day mel ni yéen a def waa waaw doon nan fay mais léegi doonoo bàyyi fay ndax amuñu luñ fayee ko waa muy maanaam mbër ñu fi ñëw gaaleem di kalaame si loolu dafa bëri man tamit noonu waa te ñun xam nga waxuñu kii defal lii waxuñu kii ñun suñu oto la ñuy toog xam nga gars yi séqunu kon maanaam ñu ñu fiy ñëw xam nga nan ni bàyyi xel du ñu daalo si loolu bu baax a baax a baax waaw ñëpp ñoo far nag dañuy bàyyi xel ko su suñuy dem stade ñu dem si jàmm ñibbisi si si jàmm quoi waaw waaw bu dee ñoo ngi fi wax leneen rek ñoo ngi tuubaat bu baax a baax. gis ngeen mbokk yi di leen jox ci daje beneen yoon ak yeneen ba ci ETD Média Adama kontaan naa ci yow jaa ngeen jëf.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

yéen doomi réew